bii danga bëgg loo wutu jot ko laalal ci foroote yi ma ne la frotté anti cat yi mu yor nii képp ku ko laal di nga xam ne roy du moroog pire te pombiteer du moroomu new man nag damay wax te yàlla rekk tax ndax Cheikh Ibra kenn du moom dama ne ku jëflanteeg moom ci garabam yi di nga xam ne ah sallallahu ala muhammad amul morom te lépp lu mu def turu yàlla la koy composé Cheikh Ibra borom sallallahu ala muhammad numéro téléphone am mi ci barre de recherche bi yow mi gis vidéo bi te bëgg a jokkoo ak jox lay tegtal Kun Fayakoun TV ñu ngi leen di ziare bu baax waaw dañuy wax eau de Sifa bi li ko tax a jóg maanaam yow mi nga xam ne danga ngaa lekk lekk ko bon wala yow dañ laa jox koortu nga lekk ko wala nga dem nga si médecin yi ñu xool sa feebar gisuñu dara lii boo ko naanee da ngay wàccu lépp lu nekkoon sa biir dafa daf koy raxas ba si jigéen ñi nga xam ne ne seen tromp yi dafa tëju nga xam ne ne pour ñu am doom day xaw a jafe suñ jëlee eau de Sifa boobu. daf koy faj eau de sifa bi beneen bi yaram boo xam ne dafay xasan moom it eau de sifa bi daf koy dindi lekk goo mën a lekk nag muy lu bon muy liggéey boo lekk liggéey bu bon boo jëlee eau de sifa bi boo ko naanee da nga koy wàccu day génnewaat lépp loo xam ne dafa nekkoon si biir te bokku si moo tax dañuy xoolaat di ni lekk wala nga lekkaale ngelawu sayaatin moom daf koy dindi moo tax ñuy ame mettitu biir bu leen sonal lool wala guddi gi du nelaw buñ ko sëlmoo rek dañuy nelaw ba tax eau bi mm, ak foo mën a ne rek boo wootee si numéro téléphone yooyu daal la ko jox mooy 78 115 66 765 16 61 Cheikh Ibra sallallahu ala Muhammad moo koy joxe.